فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بالذبين عظيم الآية مبوك جلني غنا بني سنت يا الله سبحانه وتعالى ممي يا سنت دي ساكو تي موم نيمبل دي ساكو تي موم اك جوبانتيكو دي ساكو تي موم ام جيكل di tuub di dellu suñu borom di musta ci moom yëpp ay wu jógee suñu bakkan wala suñu jëfee ñaaw ñu ngi wax ne njub alali yàlla la ku mu ko jox kenn mën na koo xañ waaye ku ko xañ kenn mën na koo jox yàlla moomu ñu ngi séerété dëggal na moom rekk fi nekk ko jaamu jariñu ku ko jaamu perte ak àllaaxira ñu seede ba tey ne yàlla moom moo yónni suñu yonente muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk yonente bi nga xam ñëw ci jamono ku ko topp texe ko ku ko toppul doo texe àddina ak àllaaxira yàlla nee ci alquran yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla ragal yàlla ragal yàlla nag mooy góorgóorlu ci ndigal yi di ko def góorgóorlu ci tere yi bàyyi ko yàlla mu ne lii bu ngeen ko defee yuslih lakum amalakum dana yéwénal seen mbir wa yaxfir lakum dunubakum dana jéggal bàkkaar yi ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كيف كتب يلا سمر سبحانه وتعالى اجن انتم دي دافي سين دي جال باي سين تري دا تخ تخ غوري ادنا الاخر يلا نكو يلا داف مبوك يي سونو خول باتاي نكو جيمي تي والو تبستي ñun ñëpp xam nañ ne li ci des taxako taw koo bëri ndax tey weeru dëgg li ñu wax weeru dëgg tey la fukki fan ak ñett kon fukki fan ak juróom-ñaar moo ci des ak fukki fan yëpp fële li ci des matatul weer am na nuñ ko war a waajalee nag loolu jullit bu nekk war na koo xam ba xam na la koy waajalee tabaski googu nag bala ñoo ñëw ci islam am na fa mu déparé woon mu yonent yàlla ibrahima alayhi salaatu wassalaam yàlla da koo nattoon mu dem ba màgg lool màgge ñii am na lu ma téeméeri at ak lu topp jabaram presque am na téeméeri at ak lu ko jege amuñu doom muy ñaan yàlla doom fu mu toll rabbi habli mina saalihin di ñaan yàlla fu mu toll loo ciy déggee mooy ne nit ki ak foo mën a toll ci at loo mën a bëgg de ko ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo am téeméeri at soxnaam presque am téeméeri am doom waaye mu saxoo di ñaan yàlla rabbi habli mina saalihin yàlla yàlla nga ma may doom te def ko mu bokk ci ñu baax ni yàlla may ko doom ji ñu wax ismail alayhi alayhim assalatu wassalaam bi mu demee ba nekk tut tànk ay fukki at ak ñett mu géntu benn bis yàlla ne ko ismail damaa la ko mayoon mu ne ko waaw mu ne ko damaa bëgg nga tër ko ren di ko jaamoo ma ko te ab yonente bokkut ak ñun ab yonente lépp lu mu gis gis ko ci nelaw rek dëgg la lépp lu mu gént gis ko ci nelaw bu bët setee da ko war a def ah gis na lool magum téeméeri at yu topp jigéen pa jigéen gu am ay quatre-vingt-dix-huit ans yu teg amuñu lu dul benn bant ñu yaakaar ko bàyyi ci àdduna mu doon leen ndigal jógee ci yàlla tey na rendi ko ah lii kat du caaxaan waaye tegu ca baat mu xëy woo doom ji mu ñëw na ko ah doom am na lu xew de mu ne ko li xew lan la mu ne ko yàlla ne mooma momu digal ma rendi la ta xam nga façon re yeb rendi mo ci gëna metti rawati rawatina rendi nit man nga ko doxé gannaaw dóor ko dara mu daanu dee wala nga jox ko poson mu naan ko dee wala nga babax ko wala nga dugal ko ci seen façon dee yeb dal rendi mo ci gëna metti yalla yàlla ma rendi la jaamoo lu ci sa xalaat qala ya abati fal ma tu'mar yalla lako deer mu am mu defal satajiduni insha allahu min assabirin gana ko mun de gana ko mun de ah mu dem ànd ak moom ngir mën a sore kër gi jëfee ndigalu borom bi suñ borom subhanahu wa taala fas yéene ko ren am na ci téere histoire yi sax ñu ne bi mu demee ba di ko ba tëral ko ba ko ren di daf na ko papa takkal sama bët yi ndax ba ma bàyyee ma di la xool nga di ma xool ren di gi du yomb takkal samay bët moom nee ba takk bët yi takk tànk yi takk loxo yi génnee paaka bi wa naadaynaahu ay yaa ibrahima xad saddaqta ruya ñu woo ko ne ko ibrahima yàlla dala doon seetlu dala doon testé waaye testé bi dëgg na inna kadalika la gisul muhsinin yàlla mu ne nii lay fayee képp ku rafetal inna haada la huwa albalaa almubin lii natt bu natt bu rëy la amoo lutul dul benn doom ci aduna ta yaam ko am gannaaw bi nga amee téeméeri dem ba mën doxi ay yónente fu at ak ñett la ñu la la rendi ko natt bu reele waye yalla yàlla mu ne wa fadaynaahu bi zibhin azim ma andil ko xar mu rëy ngandem kuy la ko andil la ko Ismaayla bàyyi ko bu ko rendi rendil xar mi mu wuutu Ismaayla lo ci déggee am nay jàngat jàngat moy lan moy nit bo boo nekk sa njabot ci kër gi bëgg njabot gi boo joxoñee ñu jaar fa fi yàlla joxoñ yow jaar fa ba pare boo bëggee ba waxee ci kër gi kenn du teg baat yàlla bu waxee bul teg baat kon Ibrahima dafa dégguloon boromam yàlla tàggatal ko njabootam doom ji meru ca yaay ji meru ca ñoom ñëpp ñu ànd ci ndigal loo xam ne yàlla suñu borom subhaana moo ko joxe nettali ko ca suratu Saafaat histoire bi ci gàttal nii la demee ci gàttal mooy ne kon nit ku ci bëgg am baat sa kër say soxna say doom fexeel yàlla suñu borom subhaanahu wa taala nga déggoog moom yàlla déggoog moom méttiwul lim la digal def ci li nga lim la tere bàyyi ko ndax yàlla mu tere bëriwul yàlla tere bëriwul li mu digle moom bëri na waaye yi mu tegle bëriwul yi mu tere bëriwul kon yi mu digle def ci li nga man tere bàyyi lépp yàlla suñu borom subhaanahu wa taala la Muhammad alayhi salaam bi mu ñëwee yàlla ne أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إبراهيم مي سمام لا تا أمنا يون ون فخالن بايكو في تبال يون واوا يون واوا نك تبكو مو عندي لني وقت بس كتنين مو عندي لني وقت بس كتنين نعم، لا يالله سنبرا سبحانه وتعالى مو نيون تب صلى الله عليه وسلم تبال سمام إبراهيم تبقو نتي لنكو نتبه مو مو عندي تبس كفيتنين يالله سنبرا سبحانه وتعالى بو دفين ديگرام xéewal yi day baawante ñëw ci yow Ismaïla màgg na ba ànd ak baayam ba ñu tabax kaaba ga màgg na ba yàlla def ko ab yónnante ba yàlla wax ci moom yu bëri moom ci wazkur fil kitaabi Ismaïl innahu kaana saadiqal wa'di wa kaana rasuulan nabiyyan yàlla mu ne fàttali ko histoire Ismaïl lu mu la mas wax daf koy def te ab yónnante woon wa kaana ya'muru ahlahu bis salaati waz zakaati wa kaana 'inda rabbihi mardiyya moom ku daan sonn ci digal waa këram ñuy julli tey jox asaka yàlla mu ne Ismaïla kontaan naa ci moom lool wa id yarfa ibrahima alqawaida min albayti ba ismail rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alim yàlla mu ne fàttali ko ñoom ñaar ba ñuy tabax kaaba la di ñaan yàlla ne ko yàlla yàlla nga ñu nangul suñu liggéey bii kon bokk jullit ñi yàlla suñu borom subhanahu taala ay digleem bëri na nañ ci def suñ kemtalaay kàttan li mu tere bëriwul mën nañoo bàyyi lépp ku góorgóor ku nekk yàlla suñu borom subhanahu wa taala dimbale la ci loolu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 sunna la sunna bu dëgër wala sunna yu ñu feddalee ci la bokk sunna mu akkada lañ koy wax képp koo xam ne mu kallaf la nga am ko man ko da nga koo war a def ndigal la jógee ci yàlla subhaanahu wa taala képp koo xam ne mu kallaf la nga ko man nga ko tabaski bu jotee danga nga koo war a def ngir roy sunna soo xam ne ci yoon te a ibrahima la jóge ndax yàlla moo wax ci suuratul kawsar inna aataynaaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaani'aka huwa al-abtar alquran foofu la tuddee tabaski yàlla mu ko maa la jox kawsar kawsar benn déeg la bu nekk aljanna bu julli tabaski jotee jullil te boo paree ren di boo amee loo ren yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog bi muy tabaski ñaari kuy la jënd kuy mag jullit ñi loolu war nañ ko bàyyi xel ñaari xar yu mag la jënd bu am lu weex ak lu ñuul mu ne yàlla bii rendi naa ko mag sama waa ci des rendi naa ko rendil naa ko sama xeet képp ku ci amul tabaski tabaskiwul tabaskil naa ko kon mbokk loolu loo ciy déggee mooy ne bu tabaski jotee boo amee defal boo amul noppul ndax ki nga xam ne moom ak jaamu yàlla nangu nañ ko kenn werante ko mooy yonente bi alayhi salatu wasalam yàlla nangul na ko te tabaskil na la ba pare kon bu jotee yenn coono yi jëru ko yenn tàggale ko sago yi jëru ko yu bëree bëree bëri bëri jëru léeg-léeg da nga dégg sama maas gi xamul nga dégg ñu naan tabaski li ciy farata mooy xar mi xar mi sax du farata tabaski amul farata lépp sunna la lépp lu ñu def ci tabaski sunna la amul lenn lu ciy farata amul kon loolu nañ ko bàyyi xel te yonent bi alayhi salaatu salaam jëndoon na ñaari xar yu am lu weex lu ñuul ay ponkal am ay béjjën daxaa bi kabsay ni am daxay ni aqrane mu ne yàlla bii rey naa ko maag sama njaboot bi ci topp rendil naa ko képp koo xam ne ci sama xeet jullit la te amutoon lu mu tabaskee rendil naa ko te yow muy man muy yow muy keneen muy keneen di keneen ñun ñëpp suñu tabaski yi ñu rey ah dañuy rafet njort rek ba xam yàlla nangu na wala nanguwul waaye bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam reyoon xeetam yi ko amul tabaski ba moom nangu na kon bu la yàlla nattoo boole ne ci ñi nga xam ne amuñu ko toogal gi ànd ak sa sabota dal xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam tabaski la kon loolu nañ ko bàyyi xel mbokk beneen bi ci des mooy ne tabaski képp kuy ma kàllaf man ko bu ñëwee te am nga man koo def danga ko war a def tabaski nag du ku nekk yaa ko war a defal sa bopp boo ko mënee waaye am na lu jar leeral mooy lan mooy man maa ngi ci kër gi maag sama papa ak sama yaay ñoom ñaar amuñu man ma am dama leen ko jox de man maay rendil sama bopp jaamu yàlla man maay reyal sama bopp waaye dama jox sama baay dama jox sama yaay boo amee bu la ko sa doole mayee jëndal leen ñoom ñaar nga jëndal sa bopp waaye amoo ko ñoom ñaar amuñu wàcc na leen yow defalal sa bopp loolu benn la ci jàngalee dañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ku amul wàcc ku am defar sa bopp waaye rus na maa tabaski te baay bi tabaski loolu yow sa yoon nekku ci yàlla moo la jox kañ sa waajur loolu sa yoon nekku ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom la neex mu doxalee noonu dara nekku ci te buñ koy leeralal julli ñi ne dana woyof ci ñu bëree bëree bëree bëri dana woyof beneen ba mooy koo xam ne dafa yor lépp benn soxla rawatina bu ñu nekkee ci kër gi soo doole bu la ko mayee boo mënee rendil ñëpp baax na boo mënta rendil ñëpp rayal benn yonent bi alayhi salaatu salaam amoon na fukki soxna ak benn benn xar la tabaski am na ci tabaski goo xam ne sax gëlëm la jëloon rayal ko jigéen ñi bu ñu dëkkee ci kër gi ñoom ñëpp nga mën a ku nekk benn fa lillahi alhamdu boo ko mën rayal sa bopp yéene leen ñoom ñoom ñu dugg bu ñu bokkul kër ku nekk këram nga mën koo jëndal baax na boo mënta jënd yow rente waaye bu jotee da nga ci gis coono yoo xam ma day taay bu weesoo sax ñu bari ci ay jafe-jafe la ñu dëkk te loolu jëru ko yàlla amul jënd jaamu yàlla goo xam ne dafa la koy digal nga def ko pare mu weesu ngay am coono amul kon loolu lañ ko bàyyi xel beneen bi ñu war a bàyyi xel mooy ne am tabaski muy xar muy bëy kenn du ko cotiser di ko bokk xar ak bëy ku mën jënd la sa bopp ku mënul bàyyi nag ak jëlem nag dañ koy cotiser mën nañ koy cotiser par sept personnes juróom-ñaari nit mën nañoo cotiser jënd benn nag wala ñu jënd benn gëlëm ñu tëbaskee ko muy bu jour baa ñu rend ko séddoo yàpp ma comme que rend xar ak xar ak bëy kenn ko cotiser lu dul ñun ay la ñu ngi ci kër gi mën nañoo cotiser jëndal suñu pàpp mën nañoo cotiser jëndal suñu yaay mën nañoo cotiser jëndal ku ñu neex ci quartier bi mën nañ koo def waaye kaay ñu cotiser maa yow jënd xar tabaskee ko ah ah mënta nekk kay ñu ko cotiser maag yow jënd bëy tëbaskee ko mënta nekk waye sept personnes and ñu cotiser jënd aw xar jënd aw nak wala ab gëlëm loola ma man dara ko ci ta jamono fi mu tollu nak sunna la so xamne yaronte bi alayhi salatu wasallam defoon nako war nañ ko ba yakal ndax xar yi rawatina leen ji prix yi fu mu toll juroom ñaari borom kër buñu déggo ku nekk joxe 50000 dañ am nak woo xam ma sha allah wala 75000 nak mille wa ñu bëgg lañu am bu tabaski gaa ngi ren di ko séddoo ko ku nekk dem sa kër mu jeex loolu islam maye na ko te nag jamono mu naqaree rek nga xam ne jamono dafa naqari jéem a ànd ak moom te loola waaye léegi ñu bari wax ñu naan rus naa ko kersawu naa ko def naa nii def naa nii def naa ko nag ba indi sa bopp ay jafe-jafe ci tabaski jële kon loola nañ koy bàyyi xel mbokku jële beneen bi ci mooy ñu dëkkee ci quartier yi te nekk ak imaam yi. nañ ñen di baye xel rawatina imam yi nga xamni amuñu metti amuñu dara lu do toog ci jakk ji dekk no reena ñen di baye xel bala tabaske jot imam ñew ci jullikaay bi ñu ana xaram ñu amutum xar loolu mom dekk no ri war nañ ko wala ñu imam ana xaram ñu ne ma nga ne ku nekk jël sa loxo taf sa gemi loolu dekk no ri war nañ ko baye xel buñ koy wax nak di bi di ñew ci juma ji di ñun ndax sha allah ñun ñi fi ñew ñep ñi jëpp ci ñun ñi ngi liggéey yalla teral na leen waaye am na ci yeneen quartier yoo xam ne imaam ya fa nekk ay néew ay néew ju doole lañ bu leen population bi bàyyiwul xel boo yéexee dana ñëw ba ci julleekaay ba ñu ne ana xarum imaam ñu ne ba ñu ne ma ñëpp taf seen loxo seen jëmmi loolu ëpp na imaam bi am njariñ ci quartier bi ci dëkk bi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax wala imaam yi waroon nga ma koo wax loola gàcce la waroo bàyyi ba bam bam la koy wax déedéet yooyu yaa dëkk moom yaa ko xam xam nga ni kii xëyut gontul wala ma gont yëpp ci jàkk dee nekk beneen ko bàyyi xel bu baax a baax mbokk jullit beneen bi ci topp mooy yàlla dafa sundaan ci ñun tabaski ñu mën koo defee ci xar xar mi nu mu tuuti tuuti na am 6 mois bu ko yéesee mënta tabaski bëy lu mu tuuti tuuti na am 1 an bu ko yéesee mënta tabaski nag lu mu tuuti tuuti na am 2 ans bu ko yéesee mënta tabaski gëlëm lu mu tuuti tuuti na am 5 ans bu ko yéesee mënta tabaski waaye yëpp loo ci jànge mooy yàlla nee na lan yanaala llaaha luhuumuhaa wala dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla bu ko yàpp bu intéressé woon wala deret ju bëri ji tuuru ci gëlëm lay déparé ñëw ci nag door ñëw ci xar ak bëy waaye gis nga yàlla moom yàpp yoonam nekku ci deret ju bëri ji tuuru yoonam nekku ci li ko yitte nag mooy ragal yàlla gi nekk caw poussé la ba nga mën a def li yàlla loola moo ko intéressé ndax ndigal la te yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moo ñu ko digal nga di ko jëfe yàlla loolu danga ko ci intéressé waaye yàpp yàlla du lekkal naan loolu yoonam nekku ci moo tax wax ko ci suuratul hajj yàlla mu ne yàpp sama yoon nekku ci deret ji sama yoon nekku ci waaye li ma yitteel mooy ragal yàlla gi nekk ci yow ba mu digal la ngay jëfee loolu moo ma intéressé man yàlla loolu nañ ko bàyyi xel beneen bi mat a bàyyi xel mooy ku yor sa xaalis nar a jënd booy jënd tabaski bàyyi xel ñeent yii moo xam xar la ولا نغلا ولا بيلا ها ولا جلمنا بو امي نينت يماي بغي لي مونتا تباسكي بو غيسا ني ديكو واختاني ليغي نا نياغي كوماسي جند تا جوار نتي باي خال بيتي نديك مو يونت بي عليه الصلاه والسلام نينا نينت يي كوكو كوكو بغي تباسكي دويت ماتو خار مو خامنا نياري بدي بن باخو ولا بن مي باخو بو مانا خار رك ليمنا يي كريس يب بن ولا نياار يب باخول مونتا تباسكي dafay soox dafa am handicap ci tànk yi benn tànk wala ñaari wala ñetti wala ñeenti mënta tabaski dafa feebar ba boo ko séenee xam dafa feebar mënta tabaski dafa yooy man ne dafa néew doole feebar ba nga xam ne lii boo ko séenee boo ko rendee sax da nga naan dana am yàppam duma am yàpp ñeent ñii ñeent yii yonent bi alayhi salaatu salaam nee na képp kuy dem daral di jënd xarum tabaski nag ko bàyyi xel boo melee ni man nag nekk ndongal daara yeewoo ci jamono booy dem dañuy ànd ak ko xam ndax gars yi saay saay nañ saay saay goo xam da ngay dem lele nga gis kuñ jaay xar ma ben beut benn bët ba baaxul ndax dañuy ñew beut bu bon bi côté boobu lañuy ñuy taxalee xarmi ke nangam xarmi nangam xarmi nangam ba nga jënd ko dem sa kër bu la ko yalla natto tim bo àggee ba sa kër amo benen pexe bu ke man nga ko ray ngir yap way du tabaski de bu ko tuddee tabaski bo amé pexe ci digënté bi rek ray kon li lañ koy bàyyi xel ñent ci ki ben beut ba bu mu yaq ñaari bu mu yaq ben tanki bu mu yaq ñaari wala ñett wala ñeent bu mu feebar ba nga xam ne ku ko seen xam ne feebar bu mu néew dool tam kattan yooyu ba nga xam ne ku seen dana xam ne lii li ñuy wax naan rendi mu dee rendi lu mu dee loola yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko nee na ñeent yi ma tuuti ko sax bi ci yi ñuy so yére islam ni mu ci bëgg mooy na mën a julli rek bu mënee bees nag baax waaye bu beesul tamit te mën a julli alhamdulilah rabbil alamin kon yére lu mu seer seer lu mu bees bees am sobe mënta julli am soxla waaye coono yi bëri na ci borom kër yi lool ci ñun ci ni ñuy tabaskee fii ci Sénégal yére yi bëri na sonn leen xar yi kadaalika leneen noonu leneen noonu leneen noonu leneen noonu kon loolu lu mat a bàyyi xel ma rek sunna la yàllaa ko digle ku man defal ko mënul bàyyi waaye dugg ci engagement yoo xam ne bu tabaski ki weesoo nga am téléphone yooyu wuyu ak yoo dul wuyu am euh, euh, mbedd yooyu jaar ak yoonu jaar di làqatu nit ñi ñu di la yóbbu police ak nangam nangam loolu dara jaru ko ci nee naa la Tabaski dara du ci farata lépp sunna la ngir lan ñuy wax naan farata ji mooy xar mi xar mi sax du farata sunna la boo amee defal bu amul bàyyi te xam nga islam li ci neex lan la yàlla bu la diglee nga man defal boo boo mënul bàyyi du la mbugal yàlla moo la sa moo santaane Tabaski yow amoo loo Tabaski toogal du la ci mbugal su fekkoon da sax nga defi pexe. waaye du la mbugal te boo ko gëmee sax lool nangu dogal bi boo yéexee mu defal lay xéewal beneen bi tam mooy yonent bi alayhi salaatu salaam tabaski la woon na ni ñi tabaski wutoon kon loolu nañ ko bàyyi xel mbokk jullit ñi allah rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daaka a'daa ad-din اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله ونقوم إلى الصلاة يرحمكم